ni nuyu Sénégal yi nga xamante ni yëpp ñoo ngi topp ci biir campagne électorale bi mu nekk ay jotaayu waxtaan yoo xamante ni ñoo ngi koy am jamono bu ci nekk ak euh, sénégalais yi si barab yu fasantikoo di leen euh, sant bu baax aussi ci ni ngeen ñu tijjilee seen i kër mais aussi ni ngeen ñu tijjilee seen i xol ak yéen ñu adhéré ci li nga xamante ni moom lañ leen di wax ak yéen bi nga xamante ni moom lañ am pour soppi réew bi gis ngeen nag bi ñu duggee Fatick ba tey euh, image yi moom li tubaab di wax no comment la daanaka Fatick mooy dëkk boo xamante ni déficit infrastructurel bi gis ngeen ko garage bi fi la ñu nekk bi ñu fi ñëwee législative 2022 gis ngeen ko nii la meloon transporteurs yi amuñu ku leen taxawu le système de transport n'est pas donc tey ñoom soxla nañu état taxaw ci seen wet lool moom moo tax ñu ñëw tey réaffirmer suñu engagement bi ñu am ngir soppi mbir yi bu ñu wóoloo dénkuñu ko ñu réformer ko ba am un système de transport très moderne dina ki nga xamante ni moom moo ci xëy ci gont pour ñu am un système am day am ay infrastructure parce que tey dëkk yi wër Fatick yëpp daanaka boo ci dem tey soo moytuwul vingt kilomètres ngay daw à l'heure ñu am besoin ci wàllu santé mu am jafe-jafe yu mag bu dee jigéen bu war a am doom nga wala koo xamante ni euh, nattu dal na ko jafe-jafe bu mag lay boo moytuwul bala muy ak si hôpital daanaka dafay faatu depuis 64 ans seetaan nañ ko population yi loolu moom moo tax ñu bëgg ngeen wóolu ñu ñëw changer li nga xamante ni moom mooy la donne am nañu xam-xam bi am nañ taxawaay bi am nañ yéene ji mais surtout am nañ yërmande bi pour mën koo def l'activité économique dans cette région daanaka amul région ki regorge de potentialité yoo xamante ni su fekkoon gunge nañ leen tey jii financé li nga xamante def xaalis bu bari ci secteur yi nga xamante ni moom moo mën a porter le développement de la région nga def ci côté bi industrialisation ay usines yoo xamante dina mën a créer de la valeur ajoutée des richesses mais surtout résorber la gap du chômage kon tey doomu Fatick du soxlaa dem feneen li ci gën a métti li ci gën a métti sénégalais yi bu leen kenn nax ba ngeen juum jox seen carte koo xam war leen ko woon jox la coalition Papa Djibril Fall président reste la solution pour les élections de 2024 solution solution ci wàllu ay ndaw yoo xamante ni am nañ kàttan gi suñu borom dimbale nañu ci am nañ xareñ xarañteef bi am nañ cawarte gi am nañ yërmande bi am nañ xam-xam bi te am nañ ñu am xam-xam yi mën nañ tàll suñu loxo sénégalais yëpp yi nga xamante ni bëgg nañ réew mi am nañ yéene ci réew mi ngir ñu ñëw soppi ko Sénégal yëpp dina suqaliku doomu Sénégal mën a yëg boppam ci réew mi yokk ba yëg ko jàpp nañ ne loolu mooy aujourd'hui le combat te loolu ça passe par le combat sur toutes les souverainetés souveraineté alimentaire mooy fexe ba nit ñu mën ko koo bayal seen bopp ñu am logement social te logement pour ñu mën ko am permettre ndaw ñi ñu mën a am kër génn seen kër papa yi dem tabaxi seen kër foog nga am suuf mais foog lépp luy tabax ñu mën ko yombal. un problème on ne le déplace pas on le règle définitivement donc il faut que nit ñi am xel mu leer xam décision yi nga xamante ni moom la ñu war a jël te décision boobu nag mbañ gàcce bi le 24 mars bu ñu duggee nañu xàmme ñi leen di nax ñoo ngi leen di gërëm bu baax leen sant jërë ngeen jëf. jërëjëf